benn euh, yar di li nga xamante ne nii moom mooy tax nit mën a doon nit koo xamante ni nekkinam ci kaw suuf dafay jag euh, doy na sëkk ci tegtal doy na sëkk ci niral muy ki nga xam ne moom la yàlla tànn mu gën ci nit ñi muy Seydina Muhammad mm-hmm. li yàlla njëkk a def ci moom moo di yar ko moo tax moom ci boppam daan na wax yàlla ma yar ba pare rafetal sama yar ndax jikko jikko moom mooy nit te jikko ju rafet ci ab yar bu rafet ci lay bàyyi ko moo tax ki yàlla yónni mu gën ñëpp di Seyduna Muhammad tamit gën ñëpp jikko moo taxoon mu gën ñëpp ndax yàlla wax na ko ne ko mboolem jikko yu tedd yu kawe yi yow say jikko moo gën a tedd moo gën a kawe bi yar ba matee jikko ji mat daf ngay dal di nekk koo xam ne ku nite lay doon nite gi mu nite woon it moo taxoon yàlla ne ko kaay ma yónni la ci nit ñi wa ma arsalnaaka illaa kaafatan li naasi yónni naa la ci képp kuy nit li taxoon mooy ngir mu niteel ñu ndax yar ba dafa mat sëkk te rafet adabanillaahu wa axsana taxdibi jikko ja mat sëkk te rafet wa innaka laaxlaa xulixin xasim mu nite ñu ne ko wama arsalnaka illa kaafatan linnaasi kon nga gis na ñett yooyu ñoo teglantoo muy yar bu rafet jikko ju rafet nite nit nag su xasee ba nitee dundam ci kaw suuf jag ñi mu seqal penc mi seen dund jag mag ñi xamoon loolu moo taxoon seen yittey àddina yëpp moo nekkoon fexe ba nit nekk nit ku am ab yar loolu nag mu amoon aw yoon woo xamante ne dañ koo fàkkoon ngir su nit ñëwee ci jamono mën a yar ñu mën a def ci moom yar yomb yar ba mu am ab yar bokk na ci fanu daan tàmbalee ab yar muy tànnal doom yaay soo demee ci boroom xam-xam yi ñaare nga dégg ñu nettali la xiisa ci ki ñëwoon di kalaame baayam ngir ñàkk yaru ak ki nga xamante ni dafa ñëwoon di yarlu doomam lu ñëwee di yarlu doom ji ñu ne ko doom ji yar ko wees na fekk mi ngi toll ci juróom-ñaari at mu amaat doom mu juddu mu indiwaat ko ne ko dama bëgg nu yaral ma ko ñu ne ko yar bi wees na ci kuy doog a juddu mu ne ko kon kii kañ la yaram du wees kañ la yar bi dul wees mu ne ko yar bi mu ngi tàmbalee ci nga tànnal ko yaay ju baax yaay ju baax ndax waxkat ba def ne camuk jigéen ak mbii fa ñu góor tuuti suwaay ne góor gu baax ak jigéen ju baax ñooy jur doom ju baax kon ndekete ni nu doon tànnee yaay noonu lañ doon tànnee baay li ko waral mooy njibbirit moo gis lanu fa gajje njibbirit moo gis lanu fa gajje boo musaan jamono ji ñu toll boo demoon ci àll bi fekk tool yi nga xamante ni moom la ñuy ruuj nga daan gis ay ngeer di fa sax ak i sexaw ak i karkar ñu leen di gajj buñ leen gajjee am na foo xam ne bu fa eggut ca reen ba ba ray reen bi su tawee ba tooy dafay jibbi sunu gajjee ngeer buy jibbi ngeer rek a fay jibbiwaat moo tax ñu ne njibbirit nii lii jibbi nii moom lañ fi gajje woon moo tax wolof ne njibbirit moo gis lanu fa gajje loolu tegtal bi mooy kere ba kocc di yooteeg doom ja doom ji bëgg a denc dafa dox ne ko jabar ne tekk kocc dox ne ko goro wure wa moo tax njibbirit moo gis la fa gajje moo tax mag ñi bu mu daan denc duñu tànn jabar goro lan daan tànn ndax xam na ne ñibbirit la fa lan fa gàjje loolu la ñuy yoroog asakan ak Mamour asakan xaale ah, kurangoone ma dëkkan jaxeer <laughs> da dégg <laughs> waaw nga gis ne moo tax taasukat ba naan hmm. doom ndeyam da caa foor hmm. su koy nàmpal da koy xool waaw euh, deret dafa foor te deret du fen borom rek a koy wor te bitil bu ne lam def la saañ bay xeeñ te la ca maam sota koy jël ba yombal xiyam doom giléem bàyyi giléem bu doom juddoo sëf rek lay xel a baaxoo su ko mënul wàccal mu dem moo tax mag ñi dañ daan tànn ci tànn lan daan tàmbalee ab yar tànn yaay ju baax tànn baay bu baax ci tànn lan daan waajale doom ji ni yar ëllëg ci nan lan ko yare nan ndax dana neex a yar du neex a yar kan lay doon lan lay doon ñeen ko daan waajale ca tànn ba ca tànn ba tey nag ndax mu ngi tànn ba tey am déet ndax tey je t'aime moo am tey l'amour <laughs> moo am tey tu moo am tey yu bëri yooyu yëpp dafa am tey waaw yu solo <laughs> tey ay bébé bébé je yooyu mu am tey euh, but chou yooyu mu am. yan ci lu wér ndax yooyu boo tànnee ba pare sax daanaka yu ci bëri ci lay doog a ñëw mm-hmm. ndax yooyu ay woote la yoo xam ne yu baax la te neex. ndax dafay dafay def lu bari ci diggante ah dafay def lu bari ci diggante mag ñi daan nañ ko def daa nga gis ku takk xale bu rafet ñëw su koy présente na kaay ma présenté leen sama céet si pour wan leen fi mu toll ci xolam waaw ah, nga gis na yooyu yëpp daf daan am waaye ñu ngi ko daan amal bu nu tànnee ba xam ne li tànn tànnu na ba xam ne li nu tànn tànnu na waaye tey dafa mel ni loolu la ñuy jiital tànn mel ni tey loolu la ñuy njëkk a def lu jiitu ñuy tànn moo tax tànn lu mag ñi bàyyi woon xel la ngir waajale ko yar ngir waajale ko jamono ngir waajale ko àdduna ngir waajale ko am pénc ndax pénc ñaar rek ñoo ko mën a jagal penc luñ ko tabax tabax tabax tabax te njëkkewuñu ci tabax ay nit penc ma du jag te tabax ay nit ñu ngi ko daan tàmbalee ci tànn sunu mësaan a jóge ci tànn nag ba tànn ba lanu tànn doon tànneef ñu denc Euh, jikkoo la ñu daan denc bu ñu dencee ba wét am yàlla suñ borom mi dara tawul jigéen wann lor ñu tàmbaliwaat di yar ndax jigéen bu musaana wann lor ci lañuy am yàqin ci ne am na gan gu war a ñëw gan googu tamit ci lañ daan tàmbali di ko yar ci biiru yaayam yaay ji di yar baay bi di yar yaay ji boo leen nëbbu ak di lëlu ak di moytandiku di sàmmonte ak li muy dégg di sàmmoonte ak li muy gis ndax ñaare nga am loo dégg mbaa nga am loo gis mu am jeexintal ci li nekk ci sa biir moo tax mag ñi daan nañ ko bàyyi xel waaye léegi ci jamono tey da gis ku wann lor ba tollu sax ci weeram def yaramu neen ñu foto ko mbaa nu filmé ko yooyu mag ñi daan ko moytandiku ngir waajale ko gan gi ci wàllu yar bàyyi sax daana am lu muy jàng di ko tifli ci tënkam di ko raay ci biiru yaay ngir waajale ko doom ngir yare ko doom nan wax la sa doom soo bëggee mu juddu mel nangam wala mu doon sàngam del jàng nangam di ko tifli ci sa tënk di ko raay ci biiru yaayam yooyu yëpp mag ñi amoon ko mu nekkoon yoo xamante nii macha allah lu baaxoon la waaye yooyu yëpp tey mu ngi tàmbali di wàññiku di wàññiku ndànk-ndànk waaye mu nekkoon ay mbir yoo xamante ni yu baaxoon la waaye mu nekkoon ay mbir yoo xam ne moom lan daan waajale moom lan daan waajale ab yar ngir ab tool soo bëggee boo ko jiyee gàncax ga sax dañ ko daan ruuj ba mu set lukkat ko doo a faru faru nag wolof daan wax ne faru daanu roog yàq waaye góob a ko weddi xam nga ku la fekkoon tey sa soxna ëmb ngay wax ak biir bi dañuy yaakaar ne dangaa dof waaye bu juddoo ba màgg ci le résultat bi di feeñ moo tax bu tawagul comme fii ñu toll mu wow koŋ suuf si koŋ nga dem di cëw ji dugub ku xamul bu la fa rombee danaan kii daa dof waaye bu bët sebbee ba nawet jeex ba nawet wàcc soo demee ba góob ba takk say sabar teg bu la fa romb dana xam ne la nga doon def du ak ndof moo tax ñu ne faraasu daan lu roog yàq waaye góobu ko weddi moo tax yooyu yëpp mag ñi daan nañ ko bàyyi xel di ci taxaw bu baax a baax a baax a baax ngir waajale ko yar su doom gane jamono yaay mucc lu wéyal ñu teg foofu suñu baaraam bu ko defee ci beneen émission bi ñu wéyal ci ni mu daan wéyalee ci yar bi. Mhm. ci bu doon gane jamono. loolu am na solo bu baax a baax eh, loolu man dama si interpellé Thioro parce que tey gis nañ suñu génération dangay ngay ëmb ba dix semaine wala mois bi nga xam ne moom nga war a accoucher nga sol sa lu ample loo xam ne sa biir day feeñ taxaw ak sa borom kër ñu foto la pour après soo amee doom loolu ngay publier ci réseaux sociaux yi ne mucc naa ak jàmm j'étais enceinte <laughs> après loolu lan lan lay signifier. bon c'est quoi le projet waaw. da ngay xa da xool diir bi mu fi ñëwee. Hmm. xewat bi comme ni ko Baye di waxee diir bi mu fi ñëwee kañ la. Hmm. yow bi nga ëmbee defoo ko. Hmm. man bi ma ëmbee def ko. am na ci ñoo xam ne nii nag moom loolu mooy seen baax. xëy na tam seen jiglaay la. ba su ñu ko defee duñ ci gis ngaañ. duñ leen ko duñ waaye da ngay xool période bi mu fi ñëw. ban période la. ci yàqute. ci période bi nga xam ne nii bari na ci loo xam ne nii ay yaay ñu ngi koy teg seen ay doom ci doo xam ne du ngëneel. Mm-hmm. macha allah te papa yi nga xam ne dañ ciy ànd ak seen i jabar. Mm-hmm. ah du du question dañ leen jox ay leçon de morale. Mm-hmm. mais daal man defuma ko yow defoo ko. te am na ci sunu moroom yoo xam ne waxuma la sañ nga sax duñ ko duñ fa egg. donc xewat la boo xam ne nii bi mu fi ñëwee ak léegi diir gu gàtt la. te gis nañ lu bari loo xam ne ni jur na ko fi. gis nañu ñu baree baree baree ñoo xam ne ni ëmb nañu. foto jël seen ay photo xamu nañu ko tuddee noonu jël seen ah, ay photo waaw jël seen ay photo bu ñu paree moom la ñuy publier gis nañ lu bari loo xam ne nii xew na ci ah man de jàngat laa ci am yu bari mhm. xëy na nag ñi koy def aussi ñi mu daloon am nañ ci ay jàngat duñ ci def ah. baaxul mhm. ci nuñ ko mën a waxee gënul mhm. ndax li fi suñu maam yi bàyyi woon ba tey jii ku ciy dox xëy na doo duñu la wax euh, ngàcca puuca comme ni ñu koy waxee duñ la wax defoo li nga war a def donc suñu nekkee ci loolu ba tey jii ngëneel lañ ciy gis. Mhm. mooy jur ay doom yoo xam ne ni ëllëg ki sibir boo ko nee toogal mu toog. Mhm. ndax fii ku fi sa doom màgg la jël la rek. xamal ne ca nanga ko juree la ak ni ko mbay Babacar am na daal fu mu jógee. Mhm. ba si foofu. ndax doom màgg na fi ba tàyyi mu ngi noonu màgg na fi ba tàyyi euh, la jël ndayam. la jël baayam. te su boobaa yow mi ndayam ñun ñii jigéen ñi comme ni nga ko waxee ñun ñoo ci parce que yow mi ndayam la ñuy wax. à chaque fois ana yaay moo tax euh, dañuy wax naan tànn jëkkër tànn tànn euh, jabar mais yaakaar naa tànn jabar moo gën. ndax yaay ji mooy kii des ci kër gi yaay ji mooy des ci mooy des ci kër gi ak papa nu mënti mel soo amee jabar ju baax yow sax yow mi góor mën na laa yóbbaale ci baax bi mhm. donc jigéen dafa am importance ci suñu société bi rawatina société bi bu Sénégal bii mhm. Mhm. nga xam ne nii bu dee yar bu dee ay valeur ak lu mu mënti doon jigéen ji ci boppam moo koy def ci doomam euh, dañuy wax sax naan sa boroom kër jigéen mhm. ji bu amee jabar joo xam ne nii comme euh, derrière tout grand homme y une grande dame comme ni ñu koy waxee mhm. góor goo gis dafa war a am jigéen joo xam ne nii ci kanam ak ci ginnaaw dina ko mat seytaane mhm. waaye tam dina ko mën a muur ci lépp mooy rek ci njaboot gi mooy wàcc ci njaboot gi donc jigéen lu am importance la na ñuy bàyyi xel ci yooyu di bàyyi xel bu baax a baax comme ni nga ko waxee ci ëmb yi di suturaal sunu ay doom bu ñu nekkee sunu ay biir mm-hmm. waaye tam di leen suturaal bu ñu bu ñu leen imbee mm-hmm. di leen suturaal euh, euh, seen yar seen yar yi nag lépp ndax doom nawle la mm-hmm. loo mënti def ëllëg xoola war ngaa sax rus nekk ci biir néeg sa doom ñëw fekk la nga simmeeku na la yàlla juree woon mhm. lu mu doon doon xale lu mu xamadi xamadi xamadi mhm. nit ki da ko war a war a xam ci boppam eh, toog sa doom ji la làmbatu ci yenn nii sax mhm. man yaakaar naa ne ak ndof la toog nii xale nii war a xale bi nga bàyyi sa doom mu lay làmbatu côté bu ne am na ñu koy def am na jigéen ñu koy def simmeeku ba set <laughs> sa doom du dugal ak loxo génne fu ne loolu rek dèjà da nga cee war a yar sa bopp wax ma laa nag ngay am loo xam ne nii waaw da nga koy di parce que lépp ci yar bi la. Mhm. lépp ci yar bi la waaw. Mhm. nañu nañu noonu en tout cas mhm. Assane euh, noo jàngatee mbir mi. pour man loolu euh, topp bu bu ëpp. on su on on on mi ngi naan kañ kañ la kañ la fi dugg. xool fi mu jógee déjà. ça a commencé avec les les stars ay Rihanna. c'est vrai dafa dem sax bu utal ko style moom. yére yu muy sol yoo xamante ne pour biir bi feeñ. Mhm. day xotti biir biir bi di feeñ. waaw donc euh, si ñooñu ñoo commencé def tendance boobu ñun ñuy copier malheureusement ñun on copie tout et n'importe quoi mhm. n'importe comment mhm. sans se soucier de nos réalités sans se de li nga xam moom moo nekk fii yëpp ñun li ñuy dund ak ñoom li ñuy dund bokkul xëy na mën na leen jikk mais ñun suñu cosaan suñuy aada suñuy valeur dafa am yu ñu am yoo xamante ni gëm nañ ko booy yow dëkk fi ko koo am fi loolu nag dañu si war a aar sa bopp aar sa njaboot aar si nga xamante ni euh, si yow lañ war a jaaree si si si euh, ndigalu suñu borom ngir mën a ekk si àdd donc dafa am loo xam ne da nga ko amel mhm. te malheureusement euh, koy perdre souvent mhm. il faut arrêter de jouer aux stars quoi. il de jouer aux stars et puis dañu war a tànn soxna waaye je me dis aussi noonu la ñu war a tànnee borom kër parce que soxna si tey am na loo xam ne boo ko bëggee sax boo xalaatee sa borom kër di nga ko joom ma def ndax du la may sax fit bi du dëgg ah Pape. lu solo la mooy maanaam roy bi xam nga ñun moom vraiment roy moom boo koy booy roy da ngay doo jël lépp da segg jël li nga xamante ni moom mooy jikko yu baax yi mais malheureusement ñun Sénégal dañoo tàmm bu ñuy roy daal ci tubaab la ñuy jël te bu ñu ne ouverture et enracinement ouverture boobu vraiment dafa war a nekk li nga xam moom mooy suñu aada ak suñu cosaan mhm. parce que mhm. am ne boo fa demee góor ñi dañuy woddoo sër waaye Sénégal fii moom góor bu ko fi mhm. euh, ni tamadu moom mooy sa aada dëkk ak sa cosaanu dëkk mhm. vraiment loolu lu am solo la loo xamante ni yaakaar naa ne diine sax ba mu ñëwee am na aada yoo xamante ni daf ko fee bàyyi mhm. donc loolu bu ñu ko fi naree romb nara dem ci leneen mhm. vraiment daf ñuy daf ñuy indil sérieux problème donc buñ ci mag ñi mu fi wax nii buñ ci tënkoo lii rek jubal na société defar na ab société donc euh, lu am solo la loo xamante ne day jaadu kon vraiment ñu koy fàttali nouvelle génération yi ñu mën di ci di bàyyi xel bu euh, yi am nañ ko parce que nag buñ dénoncé yenn doxalin. wallaay wallaay wallaay ndeysaan yow moo am loolu kenn mënu ko mënu mënu mënu koo dindi. Mhm. gis nga euh, mbaax du ràpp. mbaax du ràpp te gis nga ñun dañu am loo xamante ne nii yàlla moo nu ko baaxee. Mhm. bokk ci ay ngëneel àddina bépp xam ko naw ko. Mhm. moo tax maa ngi wax sa su sunu sama benn taalif ma ne na ni xelu tey mooy njombe boole di càmbar ak di nattale waroo gi am ñoo tugal ci ni muy dunde baaxi maam yaa ngi di baax ñu jëlale jëggi lu dul yiw jëfe xay jafe mu di toppandoo bu yàggee sànke mais boo xoolee li li ñuy toppandoo yëpp boo xoolee lu ci bari daf ñuy sànk mm-hmm. xam nga toppandoo ak roy du benn roy mooy nga gis Pape Ndiaye di def lu baax mel nu baax nga ne man bëgg naa mel ni Pape Ndiaye mm-hmm. loolu mooy roy toppandoo mooy nga gis Mbaye Babacar euh, doon mel ni tafaangoom rek <laughs> xaw a lu ne mu dugg ci lu lu naan accam rek ma nga ca mm-hmm. nga nga nga koy nga koy toppandoo mm-hmm. loolu mooy diggante toppandoo ak roy roy mooy lu baax toppandoo mooy safaan moo tax ñi nu amoon mën nañ leen roy mat nañu sëkk ay royukaay te duñ fi jeex ci réew mi moo tax ku am garab garab guy meññ ay doom yu neex te kër ga féex yaa soo ko daanee jëmbët kaani bu jibbee ñor wex waru laa bett te wolof danaan lii raam ci ñag bi la jëm lii ci ñag bi nii ba muy raam yàgg na ba muy raam yàgg na ci ñu naan euh, guy dina jur xatax je crois noonu la. waaw guy dina jur ab xatax lan mooy expliquer loolu déjà. bu ñu ko expliquer de man xam comprendre naa ko ci olof. mais mhm. am na ñoo xam ne xëy na ñi ñi seetaan comprendre luñ ko ci olof lan mooy expliquer lool aussi parce que mën ngaa baax. Mhm. bëgg lu baax daan def ci lu baax ëmb sa doom ak lii waaye nga doom ji juddu. Mhm. xëy na tëla te fekk yow du sa coobare te du noonu nga ko jaarale. waaw xam nga coro. gis nga yàlla du juum du jaawale. yàlla du juum du jaawale te yonent bi dana innamal a'malu bi niyati mboolem jëf yi mu ngi aju ci yéene ñaara nga gis dara coro sëpp lay doon la ko bënn ma nga ca biir am na léegi loo fi wax lu am solo ma ne la sëpp la la koy bënn mu ngi ci biir mhm. nee naa la sànq doom gileem bàyyi gileem. am sëb mooy ñebbe. waaw sëb mooy ñebbe. Mhm. nee naa la léegi doom gileem. Mhm. bàyyi gileem. Mhm. su doom juddoo rek sëf lay baaxoo. ndey golo bàyyi golo bu doom juddoo kenn du ko jàngal yéeg. moo tax dafa am yoo xam ne lu xaw a doy waar la. moo tax mag ñi dañu amoon seetlu ci àdduna. moo tax lu la masaan a tënkal ba takkal la ko du dañ mukk ci àddina. nettali woon naa la fa ñaar ñaar ñi bokkoon ndey ak baay mhm. kenn ki baax kenn ki safaadu kenn ki fu mu dem ñu naw ko jox ko cër mhm. ki ci des kenn faalewu ko mënta am dara te ñoo bokk ndey ak baay li ko waral mooy mag ji moo foo yooyu kenn faalewu ko rakk ji doon ku ñëpp naw lu mu yóotu jot ci mhm. biñ demee àndee ñoom ñaar ci seen yaay dem di laaj seen yaay yaay lu xew ñu bokk ndey ak baay. kii di sama rakk ma mag ko fob fu mu dem ñu naw ko jox ko ab cër lu mu liggéenti mu sotti lu mu bëgg mu am ko man may maga munuma am dara kenn faale ma fu ma génn kenn du ma lu xew te nu bokk ndey ak baay. ba ko yaay ji tontu lu mu ko wax ne ko yow mii di sa taaw jamono yi ma sa baay di denc daa fekk ma nekk ci suma digg ndënd rafet lool jekk góor ñépp bëgg ma di daw ci sama ginnaaw mm-hmm. sa baay denc ma ma ñëw di ko jaay ab taar ak ab judd ak ab rafetaay ak jekkaay faalewuma ko lu ma digal du ma def lu ma tere ma bañ mm-hmm. nekk sama àdduna topp sama ndaw mm-hmm. su bëggee joteeg man sax man lay neex suñ tëddee ci lal bi ma wan ko ginnaaw wala ma fanaanoo baa waaye benn bis mu may naxtaan ba jot ci man nga juddu kii nag bi ma koy am dafa fekk sama taar di wàññeeku ma xam ne dëgg rek ay dëgg sëy rekk mooy dëgg mm-hmm. topp sa ndigalul borom kër ak dox ci ay waawam ak dabi bànneexam doo ngay tax am doom ju baax mm-hmm. ma dellu ginnaaw ci sama bopp di muñal sa baay déggal ko lu ma digal ma def lu ma tere ma baax topp ay waawam di dab bànneexam bu liggéey ba ñëw ma nuggal ndox xóot sob ciy tànkam raxas ba mu set ak ci kaw xolam di sedd jamono ju ne sa ji ci la judd moo tax doo leen bokk mukk ci àddina mhm. ca moo tax ñaare nga gis dara sab lay doon la ko bënn nga ca biir mhm. yàlla du juum du jaawale te nit ku ne balance bi nga nattee lépp la ci balance boobu la ñuy nattee fay la mhm. moo tax njibbirit moo gis rek lan fa gàjje kenn amu ci garab moo tax yooyu mhm. yooyu dëgg la mais nag tey tey mhm. émancipation de la femme daa ñëw tey féminisme daa am mhm. tey euh, duma ma du femme objet daa am tey duma ma femme au ménage daa am yooyu yëpp dafa am léegi tey ñu dugal ci xeli jigéen ñi yeneen i xalaat yoo xamante ni day tax ñu jàpp nañu ñu seen borom kër ñoo yem. Mhm. seen bu jigéen du jaam sama borom pour quelle raison góor su wàccee na tàngal boppam naan non duma ko defal noor yi fii kii yooyu moo xew. <laughs> mais nag te xamuñu ne sunu valeur yi yooyu ñu jox noonu. ay la fi amoon nañu fi de. ju soumise dafa dafa maam maam jaara <laughs> Buso maam jaara Buso maam Mor Anta Sali daa génn ne ko téel ma sàkket bi. Mhm. taw ba fekk ko fa ngelaw li. Mhm. mu téye sàkket bi. ñuy taw ci kawam di ngelaw ci kawam ba bët set Mamor Anta Sali fajar jot muy waajal julli génn gis mam maam jaarati xer bi mu ne ko moom bu so baali luy lii mu ne ko mbàkke yaa ma joxoon ndigal ci ma téye bi te joxoon ma góoma ndigal ma bako mu doon réew mi de bu xiinee mu ne ko maa ngi giñ ci màggu yàlla ne da am doom joo xam ne jant lay doon dina tiim àddina Cheikhul Khadim dafa am loo xam ne du dañ réalité la. Mhm. dinañu indi nag yeneen i xalaat yu koy dindi. Mhm. yu koy fóot ci sunum xel. waaye rek mu jural ñu ay jafe-jafe. ak i musiba. macha allah waxtaan bi dafa neex loolu sax boo seetloo kenn bëgg ko sax dagg. macha allah walaay walaay jëlee bu baax baax di la jaajëfal da nga ciy defaat waaw waaw waaw. Mhm. ndax xam naa ne dina doon yeneen i waxtaan yoo xam ne. ba keroog ñu koy topp ci. loyaan yi nga xam ne mag ñi daan nañ ko teg. ak yoon yi nga xam ne daan ci jaar ba yar nit ba nit juddoo neex a yar am ab yar jikkoom rafet mu nite ba loolu taxoon seeni penc jag donte alal ak matériel bëriwutoon mhm. waaye dund gu dal gu jag lañ daan dund waaw insha allahu rabbi am na solo bu baax a baax euh, Mbaye Babacar Chéri béti mu rafet waaye nag maa ngi jaajëfal sama bàjjen Adja Dieng. wallaay ndeysaan sama yaay Dieng Fall waaw maa sama sama sama xarit bi. Mhm. Euh, Cheikh Baara Ndiaye. Mhm. ak soxnaam soxna Kati. Mhm. waaw sama yaay Dieng Fall maa ngi koy. nuyu baax di nuyu sama benn xaritu.